thank you ak euh, téléspectateurs yu KS TV ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen wax ngeen dal ak jàmm euh, ci seen xew-xew bés euh, tey bii ñu fas yéene ko doore nag ak jéeya bu am fa nga xamante ni moom mooy ci diwaanu zone de captage foofu nag benn doomu Mali lañ fa daal di faat ay defkatu ñawteef ñoo amal li ni mel élément yu commissaire Abdou Sarr dañ nañ ñu nag def ab descente ci bile bërëb bu ñu tegee loxo kenn ci ñi nga xamante ni ñoo amal bile ñawteef tegaat dañ loxo yeneen ñaar di fàttali nag di Traoré fanweeri at benn dong la am dañ ko fekk nag mu daal di secteur 2 dëpp ca yile barak nga xamante ne nekk na ci doonu zone de captage fekk nañ nag ci yaram bi ay gaañu gaañu yoo xamante ne nag euh, lii nga xamante ne moom mooy nga xamante nag ci këram nga nekk Pikine nañ ko daal di nag tegee loxo xaritam boobee nga xamante moom mooy M Ndiaye gannaaw rek ñaawteef boobee police teg na leen loxo ñoom ñooñu ñëpp di leen toppee nag li nga xamante ne moom mooy association de malfaiteurs maanaam lëkkaloo amal ay ñaawteef li nga xamante ne moom mooy faat bakkan ak recel de malfaiteurs ñoom ñooñee nag ñu ngi ci kaso ba jamono ji ak douane sénégalaise daal dinay defati liggéey bu am solo mu nekkee nag ay faux yoo xamante ne daal nañ koy teg loxo mu toll ci benn milliard ak juróom-ñetti téeméeri millions yu toftal yoo xamante ne nag fekk nañ ko ci ay doomi aadama GPR bu douane sénégalaise mu daal di amal li ci altine bi nag fukki fan ak benn ci weer avril ak ci la ñu fësal ab communiqué boo xamante ne nag daal nañ ci def yile xibaar gannaaw ay opération yoo xamante ne daal nañ koy amal nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Louga ci région bu Thiès ak fi nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Ndakaaru loolu tax ba ñu teg loxo ab réseau faussaire boo xamante ne ñu ngi nekkoon ci eh, région yi nga xamante ni mu nekk fii ci diwaanu eh, Sénégal rawatina Louga Thiès ak Ndakaaru yooyu opération tax ba ñu teg loxo li nga xamante ne moom mooy ay coupure billet noir ak li nga xamante ne nag moom mooy ay billet noir yoo xamante ne nag dafa nekk en euro ak li nga xamante ne moom mooy dollar lu toll ci benn milliard ak juróom-ñetti téeméeri million ngi toftal juróom-ñett yoo xamante ne nag daan koy teg loxo bu ñu sukkandikoo ci bile document effectivement ba tey jamono jile li nga xamante ni nag amoon nañ yële ñaaw def a tegaguñ leen gët waaye nag koppar yooyu mu ngi ci loxoy yoon. ak jamono ji ngi nemmeeku beneenum ñaawteef boo xamante ne daan am ci dëkk boobee nga xamante ne moom mooy diwaanu Casamance ay série de noyades lañ fa nemmeeku bu ci mujj nag di benn élève boo xamante ne nag mu ngi am fukki at ak ñeent gannaaw rek mu àndee ay naataangoom dem ca plage boobee daal di mujj génn àdduna le quotidien mu ko daal di xamle Isanga Traoré Diallo la doon nekkoon classe de fa nga xamante ne moom mooy ci sem Sikilo nekk nag ci nord bu commune bu Kolda daal di nay bàyyi ca gannaaw mu njaboot goo xamante ne nag jamono ji ci naqar ak tiis la ñu nekk mu ngi judd atum 2008 nekk nag ñaareelu doom ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay waajuram Issa nag nekk élève boo xamante ni nag dafa sérieux woon lool ca liggéey ba nga xamante ne doon na ko amal ca l'école boobee loolee nag ki nga xamante ne moom mooy principal CM Sikilo moo ko daal di xamle moom Bara Tall nee na nag bi lay ñoon mooy ñaareel bi ñuy ñàkk ndaw boo xamante ne nag ca école boobee lay jànge daal di nag faatu ci anam yi waaye nag nee dafay woo nga xamante ne ñoom ñooy waajur yi ñu wax ak ndaw ñi daal leen nag sensibiliser ci li nga xamante ne moom mooy plage yi ak faat bakkan yi nga xamante ne mu ngi koy def ci jamono ramadan bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndaw ñi dañuy wëy di dem ci plage yi lu ko waral rek di tàngaay bi nga xamante ne jamono ji ñu ngi koy dund beneen xale boo xamante ne daan na fay ñàkk bakkenam am lu toll ci fukki at ak juróom nekkoon nag koo xamante ne mu ngi dëkkoon ci bile village di Sampaté ji gannaaw ba nag weer ca gannaaw ak keneen ñàkk na fa bakkenam ca quartier bu Sare ci commune bu Kolda beneen xale itam daan nay ñàkk bakkanam ci biile bërëb gannaaw rek ba mu labee ca géej mu nekk nag ay ndaw moo xam góor wala jigéen yoo xamante ne nag dañuy ñàkk seen bakkan ci fleuve yi nga xamante ne mu nekk ci diwaanu Casamance. mbirum yamba itam la ñu nemmeeku fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu yëmbal élément yu commissariat bu yëmbal ñu daal di amal bi lee liggéey gannaaw rek ba ñu leen xamalee ne am na ay doomi dama yoo xamante ne nag dañuy yor ay a ca bile bërëb noonu la ñu def daal di leen jiitu foofee daal di nag làqatu ca gannaaw ba nag la ñu teg loxo ki nga xamante ni moom mooy AN ak IF ñoom ñooñee nag jamono ji ñu ngi ci loxoy yoon altine nag la ñu fas yéene janook ki nga xamante ne moom mooy procureur ba gannaaw ab mission boo xamante ne nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñuy attaque der nañ ko altine fukki fan ak benn gannaaw rek ba min wi jotee la ñu ñëw nag ci bile bërëb daal di làqatu ca quartier benn barak bi nga xamante ne moo nekk ci diwaanu yëmbal noonee la ñu def seen ki nga xamante ne moom mooy AN ak IF ci ab moto la ñu yéeg nag yool bi de noonu nag la ñu def topp leen ba noppi ba ñu leen yëgee ñu tàmbali nag yokk la ñuy daw police daal di leen a jàpp teg leen loxo jamono ji nag ñu ngi ci kaso ba ba ñu leen jàppee fekk nañ ci ñoom ñetti kilogramme yamba yoo xamante nag ci ab moto la ñu ko tegoon gannaaw ba nag lañ leen yóbbu daal di leen a déféré fa nga xamante ne nag moom mooy ca kaso ba élément yu police yu yëmbal ñu daal amal nag bii de liggéey di leen toppee nag li nga xamante ne moom mooy mbirum yamba di fàttali nag ci altine bi lañ leen mujjoo a déféré ñu wax ci lu doy waar loo xamante ni daan am fële ci diwaanu Thiès ñaari borom ñaari tóor lañ fa fekk nag ñuy sëy gannaaw rek ba ñu leen gisee si lañu woo askan ba ñu daal di génn teg leen loxo dóor leen ba ñuy bëgg dee mbir mi nag mu ngi xewee ca quartier Medina Fall nekkee ca diwaanu Thiès Seneweb moo ko daal di xamle nee na nag ñaari waay yu nekkoon seen i woto ñoo leen seen nag ca gannaaw ba ñu daal di yuuxu wàllu woo askan ba ñu génn laata police di ñëw nag door nañ leen bu ñuy bëgg dee ba 23 heures jotee lañ leen seen ci biir terrain ba nga xamante ne nag moo nekkee ci diwaanu Medina Fall mu nekkee nag ab terrain de football boo xamante ne nag fa la ñu doon amal ab ñaawteef bile mu nekk nag ab terrain de football bu ñu doon amal bile ñaawteef gannaaw rek ba ñuy sëy ci seen ab biir police laata muy ñëw nag askan ba dóor nañ leen ba ñuy bëgg a dee police tamit ba ñu ñëwee ca bile bërëb fekk nañ fa nag ab préservatif boo xamante ne dañ ko jëfandikoo ba noppi loolee tamit day xibaar yoo xamante ne Sénégal moo ko daal di xamle ñaar ñooñu nag nekk ay borom ñaar tur kenn ki mu ngi tudd bees Sarr kenn ki nag mu ngi tudd MC ki nekk ab mécanicien di fàttali nag ni ki nga xamante ne moom mooy Bee Sarr ñaar fukki at ak ñaar dong la am MC ki nag am ñeent fukki at jamono ji placé nañ leen en garde à vue ca commissariat central ba nga xamante ne moo nekk ca diwaanu Thiès mbir ma nag mu ngay wëy daal dinañuy tijji ab enquête jëm ci mille mbir xew-xewu bés bi ñu daal di koy ndar képpe ak mbiru professeur Cheikh Oumar Diagne mi nga xamante ne nag jamono ji mu ngi ci kaso bi ay xibaar daal nay biir niki mu ñuy xamle nag ak njabootam rawatina waajuram bu jigéen dafa demoon fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Tivaouane fekk fa nag kilifa diine yi ngir waxtaan ak ñoom ñaanal njekk ak teranga ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Oumar Diagne loolee bu ñu sukkandikoo ci ab bataaxal boo xamante ne Cheikh Oumar Diagne daan na koy bind nee na nag loolee dara du ci dëgg du benn yoon boo xamante ne nag waajuram bu jigéen daal dinay dem ngir ñaan ñu daal di koy bàyyi ndaam sax jege na lool njabootu ko Seydi Hadji Malick Sy bi nga xamante ne nag ñu ngi ca diwaanu yoon mu daal di ñaan njekk ak na koy ñaanal ko bàyyi nag mu daal di tëdd li nga xamante ne daal dina koy def ndax ne jàpp na ne dañu ko tooñ moom mi li nga xamante ne moo jiite mouvement de rassemblement pour la vérité nee na nag waa juróom nee na nag waa juróom bu jigéen demul fenn ngi daal di koy nag ñaanal ngi ñaanal di a bàyyi moom Cheikh Oumar Diagne nee na nag kenn bu mu ko ñaanal ak njëkk ci mille mbir ndaxte nag Djibril waar mi nga xamante ne moo ko porté plainte du benn yoon boo xamante ne fas yéene naa sukk di ko ñaan ci mille mbir ba tax na sax mu ngay fexe nag ba ñu daal di àtte dëgg ci mille mbir ay avocat am di maître Khoureyssi Ba Moussa Sarr Abdoulaye Tall Bokar Arfan Ndaw ñoom ñooñu nag ne ñu bëgg justice daal def liggéeyam ci mille mbir ndaxte jàpp nañ ne Cheikh Oumar nit bu dëgg la boo xamante ne nag dafa engagé ci ay position yi nga xam da koy jël gannaaw rek bañ leen jotee téléphone di fàttali ne Cheikh Omar Diagne ba ñu ko na koy placé sous mandat de dépôt mbir moomee nag ba léegi mu ngay wëy mbokk yi loolee moo fi yeesoon ci ay xibaar ci chaîne bi nga xamante ni moom mooy KS TV Sénégal ñu leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen incha allah jaa ngeen jëf.